macha allah. ana kii bi. defaral ma yi gaaw. jox ko indi. macha allah. booy ba may ma. prési. prési am. prési teel ko am non. Oh. may leen may leen. bravo prési bravo. allah am tegal ah non yow yow nga bokk ah bon anniversaire. kañ kañ la loolu. ah, ah dem. Brasil! Madame la première dame. am am Adja xaar may ma Adja daf la bëgg a nuyu.

dem foofu nga comme comme da ngeen bloqué bu baax a gëm a dem. ku ko wax loolu. kenn waay. respect président mais maa ngi dem ma baax waaw pour ma mën a gis. ah naa la. d'accord. bos oto bi amul musique xanaa. Euh, borom table je l'ai il faut ñu xoolaat table yi